rahmatullah euh, mal la Seydina Ousmane Dramé pour rêver des consciences dañu dir soir rek ki le cas Cheikh Omar ndax ca deug deug jéem dañu nelaw sottiwul sum xel né làpp ci Cheikh Cheikh non wétal Cheikh do nit ko xamné foko fekk mi ngi am ay kaddu yu geustu war ko livrer askan wi ñu doon ko xaar nak amoon yaakar ci wéru koor wi xamne dam ko ra defee la ko nara a ren manam dajale ko ñom waxtaan ak wa kërëm jakka ji ci koñ bi du fa jog pour jublu ci lenn mu waxtaan wu am solo waxtaan wu neex wo xamne dafa daan wax tey lii am defe naa ne neexul benn jullit lii am neexul njabootam lii am neexul umma islamique bi lii mu am lii am dama ne wërta neex kenn ku bokk ci ab tariixa wóor laa neex cheikh yéen ñëpp xam ngeen ab liggéeyam yitteem yëpp yëpp yëpp yëpp De ko jëmale ci ubbi bop yi lo ñu naan réveil des consciences conscientiser les masses populaires conscientiser les musulmans conscientiser les citoyens sénégalais ko xam cheikh ci lolu ko xam cheikh ni ñu ko def metti na ñépp dama ne li ko góor jigen yi def li ko jigen def ci de musulmans la defoo naa ne heure bii heure bi réew maa ngi tàkk waaye nag euh, ku yeb na ku yeb xaw ma lan ci njëg ma ngi ko yebe waaye buñ bokkee wax dëgg bu bokkee wax dëgg xam na Cheikh jotul ak kenn dara Cheikh dañ koo tooñ Cheikh góor jigéen yi ñoo ko tooñ ab góor jigéen bu naan Jibril moo ko téléphoné ci plateau fekk na wa samu jikko yene gi dong mom. moom lëm leen wax du len lu di expliquer franc-maçon yi ak ngon gi ci gor jigen nees touti ben gor jigen bu nan Jibril war téléphoné Jibril war tey laa mas gis ku taxaw ci télévision bi ne gor jigen la gor jigen la ma tay gor jigen la ken la fi gis mu wax ko ci waxandu salte sax la ko wax ñu naa ko Jibril Waar Jibril Waar woote ni ci rajo télévision wal fajiri ana lu mu wax yow Cheikh Omar su ma la jàppee ni may def sama jabar laa lay def maanaam ni may def jigéen laa lay def loolu rekk waroon naa tax Sénégal gépp génn xam ne beneen góor jigéen feeñ na te beneen góor jigéen jóg na wane boppam waaye ak maslaa moo yàq réew mi ak maslaa moo tënk réew mi ak maslaa moo tax ba amul benn Sénégalais wax na fa nga jëm xam nga ko ma bëggoon nu bokk gone kan bokk honnête xam ne réew mii buñ ko toogee seetaan ñun ñëpp daanu am problème te ni amee problème mooy d'abord l'islam ji ñu yàlla wàcceel nu war a bokk jaamu yàlla ay franc-maçon taxaw wëlbati ko soppi ko jaxase ko ba tey ji benn sénégalais boo xam ne fi nga jëm xam nga ko y a aucun sénégalais qui est certain de son lendemain ñun ñëpp ñooy làmbatu làmbatu boobu tegul fenn fenn la tegewul yàlla dogal noo am ay kilifa yu diine kilifa yooyu amul benn apport boo defagul nañ ko ci ci jamono jii mu feeñ lislaam man koo def muy ndam gisaguñ ko liñ fi fekkee daal mooy ay cant ay gàmmu ay màggal ay woy kuréel lu kenn xamul ci la ñu nekk ba réew maa ngi nii tubaab bi këfati na ko bu ko jàppoon benn jàpp na ko ñaar fukki yoon ba tey mi ngi ni ñu tënkuñ ci gétti li gétti iblis yi réew mi ci ab kaso la ne l'islam ci ab kaso la ne julli ci ay kaso lañ ne la franc kii la la comité satan moom la tubaab bi jël jéngee ko sun xel ba tey jullitub sénégalais xamul fi penku féete jullitub sénégalais bërki démb bërki démb la yëg ne alxuraan aaye ci ak ngóor jigéen alxuraan aaye ci ak ngóor jigéen bërki démb rek rek la ab jullitu Sénégal yi ñi may jóg taxaw naan damay manifester jëm ko ci ak ngóor jigéen dama ne euh, ànd sàmm jikko yi euh, bi ma déggee euh, sëriñ Babacar Sarr di wax ànd ak meneen moroomam ñu nekk ci benn oto di live ñàkkal ko solo lool am naa lu ma naqari dégg naa lañ doon waxit ak ni ñu ko doon waxee mbir mi nekkul Cheikh Omar Diagne préparé waa këram mbir mi nekkul ay doomu jigéen képp la yor Cheikh dafa bokk ci noonu bokk ci organisation bi te li tax mu am problème li ngeen di xeex tax moom problème mbiri góor jigéen tax moom problème moo tax yéen ngeen waroon na jóg sol seenu daal mais nu ngeen ko def parce que influence bi nga am ngeen ko ci këri diine yi ak tariixa yii tarixa yi mooy li nar a yàq ànd sàmm jikko yi ndax benn ci seeni maam lañ fa yéene dund te bu seeni kàdd jubee bopp yu ubbiku te bopp ubbikoo dootu jot ñaari dërëm mbir mi loolu dong la Ababacar Mboup man bettoo ma sax parce que say kàddu boo koy déglu di xool na ngay waxe yow dangaa far te li nga fare mooy bu ñu waxantee dëgg bu ñu waxatee dëgg tu de sëñ Bass Abdou Khadre Babacar de sëñ Bass Abdou ndax nit day def fi nit bu fekkee da ngaa ak say nit ngeen xam ne Sénégal a tax ngeen xam ne une nation tax ngeen xam ne aw xeet tax ngeen xam ne diine jee tax diine ngeen a ànd ko dal xam ni ngeen di doxale ànd ko yar ak i teggin teg ko ci yoon ba kenn ku ci nekk mën a xam foo féete waaye Ababacar ni nga waxe keroog baaxut waaw li Cheikh Oumar Diagne di wax jëme ko ci tariixa yi ba jote yoonu murit bis ba doolu ay waxam dama ne bu ragal babakar yaa ne ci bi toog ñu jaxase leen tooñ leen ba ci sëriñ daara yi ne Sénégal sëriñ daara waru waroon nu jóg te jóguñu ñoom itam dem nañ ba ne sëriñ yi ñoom ñooy séyante ci seen biir ñoo sëyal xale yi ñoo jàngal xale yi te kenn da wax ab góor jigéen bu naan jibril bu ne ànd sàmm jukko yi jëlu leen responsabilité ba waa ba frappe ak france dégage ak yeneen kuréel dajaloo war a waxtaan ababacar bu gisuma la ca mbooloo ma dama rus man dama rus dama ne seen affaire tarixa yi ci ngeen nekk nekkul ci ànd sàmm jikko yi tarixa yi ngeen di dawal tarixa yi ngeen di liggéeyal tarixa yi tax ngeen def te Sénégal yi dafatuñu cette mafia politico maraboutique bi nekk Sénégal day dakk par A ou B moomu leen nu ngir yàlla nun xam nañ combi bi amoon 1914 xam nañ ko combi bi amoon sax 1896 xam nañ ko dama ne te nekk nit te delsi ci lislaam doon ay Sénégal yi xam ne riim mi ko ko libéré ànd sàmm jikko yi bettu leen ma sax ndax erreur bi ngeen jëkk a def mu signalé leen ko ba yàlla waxe ngeen dindi ko parce suñu borom waxee ba pare ngeen dindi ko booba laa wàññi samay tànk ci yéen yàlla li mu wax ci ab góor jigéen ku ne xam na ko ab góor jigéen bu la wóoree ne moom nga àtte ba ca yàlla mooy rey ko ana yen lu ngeen wax buñ ko rey quoi affaire yàlla dafa garaaw affaire yàlla bi see trop fort buñ ko rey léegi dañ ko criminaliser rek buñ jàppee góor jigéen tëj ko deux mois trois mois bàyyi ko dellu ci ngóor jigéenam te yàlla waxut loolu ci alxuraan kon weddi googu ngeen weddi képp mën naa tax seen mbootaay gi na tase dama ne buy tas teel lay def Cheikh Omar ñu di ko sant ginnaaw allah jëpp du Aziz si ba mu waxee franc yi lan leeral nu ko xamuñ ci woon lu bari ci la Cheikh Oumar Diagne jóg solu dàllam man mi mosuma cee noppalu ci fukki at yi ci laa nekk di ko gëstu ak a xool lu ma ca xam wax ci nit ñi l'église satanique bi nga xam ne moom la installé Sénégal lii nga xam ne moo fi nekk te kenn ku nekk xam na ne ci kéeféer la jëme réew mi ay kilifa yi diine ñu leen wooy ay xalif généraux ñu toog ci réew mi ci quatre vingt pour cent de musulmans amuñu benn capacité boo xam ne mën nañ fi jëlee laïcité bi dama ne kan xoolaat suñu bopp mbir mi du mbiri góor jigéen kepp garab gi nga xam ne mooy meññi ay ñaawteef ci réew mi garab googu mu ngi tudd la franc-maçonnerie boobu moo fi samp laïcité laïcité bi di jur di jur ay musiba ak i malheur yoo xam ne ci réew mi bu ngeen daggul ñaari garab yooyu mu duy fi mën a jële ak ngóor jigéen te Cheikh Oumar liggéey bu sell la ci def Cheikh ma xam ko muy ku tàlli ku yaatu ku bëgg xam-xam Cheikh day toog ba quatre heures du matin mënu koo muñ mu live ma yeewu dugg ci ci live am may live mu dugg ñu séq affaire franc-maçonnerie di ci wax ba ci médailles yu médailles yu bon yi si sëriñ yi takk médaille médaille yi nga xam d'origine maçonnique la médaille du dara sëriñ boo seen mi nga takkub dënnam loolu moo dem ba xër ci suñu deret moo dem ba faaleetuñ ko moo dem ba gëm ko dama ne Cheikh Omar Diagne nii ko ànd sàmm jikko yoon defe du noonu démb rek bi Cheikh Omar waxee démb rek Babacar bu mu waxee kontaanoon naa xam ne li mu wax dana ko def maanaam ñu ànd ñoom ñëpp dem ca conférence bi yaakaaroon naa ne sax ñoom ñoo koy jiite ndekete woo dañoo dem rek comme présenté comme yeneen organisation yu ndaw yi dégg naa Imam Sarr di fa wax waaye daanaka waxu fa dara waxu fa dara dama ni que bokk jóg ngeen am fulla dañ leen di nax kep seeni mam bay dañ bay bëgg dé bay wuñ fi dara seeni bay bay bay bëgg dé bay wuñ fi dara yéen itam bàyyi ngeen dara soti wul ngeen bëtt frontière na ci àll bi taxawalu kon gouvernement bi fi nek wërta mëna naan seenu fit ba àndu leen ak seen sago dama ne marché bi dik bu leen ci xol and sambu jikko yi ñom wañi ko nan seen doole wañi ko nan parce que lii ñuy def xale buy bootu sax dana xam ne du dëgg du yoon jël naa avocat jël waxuñu la ngeen jël avocat dañ ne ngeen jël cour ngeen jël cour lañ wax dañ ne ngeen jóg taxaw tëdd 100 mètres ca buntu ba ne Cheikh day génn dañ leen wax ngeen remplir place de l'Obélisque ngeen am fa une semaine di yuuxu ba ba Macky Sall di fi jóge loolu la doon seenu ci yéen waaye dajale mbooloo mu toll noonu ñu defee ne da ngeen di liggéey yéen yàlla ngeen jël mboom mépp gu xëpp ci sëriñ si senegal yi doofuñu naxe yi doy na kenn mënatuñoo nax dem leen jaamu ji yàlla li ma yàlla sant moom la sant ku ku nekk senegal seen yi bàyyi leen ko te ànd sàmm jikko yi dem li ngay waxtaanaat ba déggoo ay tarixa ngeen fi nekkal waaw li ngeen fi nekk du dëgg du yoon nañ ko bokk nangu mooy li gën waaw buñ ko deful daañu ko rëccu waaw activiste rek wax nañ bi bëgg a dee yuuxu nañ coow nañ jàmbat nañ luñ xalaat def nañ ko wax ko waaye gis ci liñ mujj lépp ay wor Cheikh Omar ñun war ngeen rus a génn sax ndax Cheikh Omar benn groupe bu tuuti bu restreint groupe boo xam ne motu ju zéro virgule zéro virgule ci murit yi ñoo xam ne ci yoonu mu di ci la ñuy añ ci la ñuy reer ci la ñuy dund ay xale yoo xam ne duñ dara waññu ko porté plainte Cheikh Omar Diagne ana lu ci mujj dara mujj ci mais bi góor jigéen yi jógee ne Cheikh Omar lañ soxla Cheikh Omar taxawul loolu moo leen wane seen tarixe amul solo dama ne LGBT moo ëpp doole tarixe boo mën a tudd Sénégal LGBT la ëpp doole LGBT dama ne comme ci soxla da nga jóg ana lu ko waral poñetum àdduna ana lu ko waral médaille yu ñàkk fayda yi tubaab bi doon di leen ko takkal ana lu ko waral kër yu bon yi nekk ci corniche bi sëriñ bu ne bëgg ci kaat kaat yu bon yi ah ak jéeg ji nga xam ne ah ñeenti jabar bu juróom-ñaari jabar ah koo ci seen ku ne am na jabar joo xam ne na ko mën na ko ab sët pour lan pour lan ci ñooñu ngeen sukkandiku nag ah bëgg a jubbanti askan du sotti buñ góorewul sans exception yi yëpp daañu dee dem sawara te heure bi dafa jot yéen waa Sénégal ngeen jóg adduna bi di ci des tuuti la vous êtes parmi les quinze pays les plus riches du monde malheureusement parmi les vingt deux yi gën a torox gën a tumuranke ëpp ay bor manque d'éducation ci réew moom la Sénégal bokk tey Macky Sall bu jógee awee ko ci ay góor jigéen euh, di jàppalu Cheikh Omar ce n'est pas une leçon pour ànd sàmm jikko yi mais c'est une leçon pour l'islam sénégalais dama ne c'est une leçon pour l'islam sénégalais malheureusement malheureusement 80% vingt pour kilifa yi diine yu bëri am katan ak doole Macky Sall la ñuy jàppale dama ne gëmuñu ko buñ ko gëmoon tubaab bi mi ngi taal université bi nekk Pire nga ne mille lañ sampoon université bi xaale marfal feder bi xut xëpp almet taal mu tàkk ba jeex tàkk jumaa yi ak jàkk yi ñu ci réew mu feder bu taal lépp ratisserie bi rey fi dul jeex buñ toogee tey ba 2004 Macron génne geen bi génne geenam bi saw ci suñ kaw kon xoolaat suñ bopp sawara mënuñ caa bañ a tee dem liñ perte moo bari te liñ ko yóbbeel du lenn dudul ak ñàkk fulla ak ñàkk xorom ak ñàkk fayda ak toppe toppe rek jaayaate lu dig nga maslaa ko lu ñu nga naxante ko rien n'est scientifique voilà le problème fondamental de notre pays waaye élection yi bu leen rëccee képp ku mën a daw génn réew mi nga dem sa yoon élection municipale yi as élection législative bu leen rëccee dama ne ku dib sénégalais te mën a daw takkal say dàll kenn ku ne fam la fekkoon bu fa jógee ndax réew mi torox na ba noppi torox na ba noppi nii ñu def Cheikh Omar Diagne góor jigéen bu ñaaw bakkanam bu rëy taxaw ci télé bi ne man góor jigéen laa damay sëy ne Cheikh su ma la jàppee di may def sama jabar laa lay def di bànneexu kooku taxaw sëriñ daara yi sëriñ daara yi mu leen yéen fi indi góor jigéen yéen sëy xale yi xale yi sëyante ci ab télévision la ko wax télé boobu sax ñu bàyyi wax ci jàll dañ ko waroon a censurer kii moo bon kii moo bon waaye nag yéen waa tribunal yéen la magistrature dama ne mooy yàlla gi bari na tooñe gi bari na li yàlla wax ci àtte xam ngeen ko ba jël risque bi di àtte am na loo xam ne màkkee ngi leen koy def loo dama ne am na màkkee ngi leen koy def loo mën naa tàllal sama waat ci yàlla ne quatre-vingt-quinze pour cent yëpp bu ñu dee sawar lañ jëm quatre-vingt-quinze pour cent juriste yi nekk Sénégal billaahi wallaahi bu ngeen dee sawar a ngeen jëm ci tooñ ngeen dëkk ñu leen pousse ngeen def loo xam ne defuwul la lépp ci ay fen di combiner ki avocat bu ngeen dee quatre-vingt-quinze pour cent yi sawar lañ jëm dem na ba ci impôt et domaine ay sàcc ku ci mel ne Mamour Diallo mi ku ci mel ne Amadou Ba Amadou Ba doon sàcc bu mag li def xam ngeen ko sàcc bu mag a mag a mag la dem leen këram ni mu ko def ay mbàkke mbàkke fiy dikk lim sàcc mu di leen ci teral vidéo yaa ngi circulé ci net bi Amadou Ba dama ne bu sàccoon géttug jàmbur sëriñ bi ko ganee soon bu ko joxee mu gàmmoo ko te alal di sàcc la alal jii mu jël ci trésor public bi ak këram gi nii mu mel tey bu baayam dekki woon tey gis këram gii da buy ab julit dana tiit dellu ci pax mi am lu mu wér bayam baayam ak ay mamam fuñ fek géttu jambour jiital ko ku melni nii nag nga ko trésor public donc ko ministre des finances wala di ko ministre de l'intérieur intérieur dafa sàcc ci trésor public ñu def ministre des finances mu laq lim sàccoon lepp ñoo ñu ko def ministre de l'intérieur intérieur mun na bu dossier yépp nag jeex tak tey saloo paar boobu tey bu ngeen demee ci kër mi gis ngeen kër gi gis ngeen mbàkke mbàkke bi ni ko ubbi bunt bi ah mbàkke sëñ bi dafa tiit sax sëñ bi daa tiit bi mu gisee kër daa tiit bi mu toogee ci lal bi yow yaay sëriñ toogal toog nga waa ji toog lu yàgg ñëwut mu jàng mu di xaaxataay di ree nga ne bërit fi nga doon daw jox ko ñaari loxo te yaay sëriñ lii lépp lu ñu war a vérifier la set ko xamne alal ci réew mi xale dañ ko wara jangé alal ci mi dañ ci wara jigen alal ci mi sun doom yi tàggatee ci ne indi ñu del ci tok liggé ci réew mi waaye ni ngeen bëgg a doxale ak Macky Sall Macky Sall sukkandiku ci new old order nouvelle ordre mondial andak ak l'église satanique ànd ak les bulls ànd ak banque ak FMI yu bon yoyep mu andak ak te sax yéen man daal damay dem ba mu jàgg sax mu amul tiit ci sama bopp lu ñor ci réew mi rek moomu leen ko lu fi alal rek dañuy ëmb yóbbu Macky Sall dikk imposé na da ko bandom di liggéey ak i bokkam di sàcc sàcc loo leen Farba Ngom gis ngeen bërki démb ay wuli si xaalis dañ ko jàppe aéroport boo demee almaati ngeen xool lam ci koo xam ne jàng sa du alxuraan du nasaraan ab coxeur coxeur nga woon di sarcel la woon faa lay oto nguurug màkki Sall ab géwëlam laa rek damay doon ab député maay moom suñ dëkk maay moom lii maay moom lee dama ne jaaruwul doomu Mansour Faye yi seen xale jigéen yooyu ma xam leen ñoom sax wéruñu doomi Macky Sall njaboot googu wéruñu dañoo am bu bopp problème yuur lañu am looloo am xale bi fii la nekkoon doon jàng dégg naa ñu ne am na bachelor xaw ma master war fi liggéey mi du liggéey masturbation lañuy def seen bàyyi trésor lay dem jël waxandew xaalis jox leen ko ñu dem ba France ak Brésil jënd ko ay nag sol ko ci bateau indi Sénégal même li nag yi lekk li nag yi lekk Europe lay jóge yow noo mën a jële aw nag di ko yar pour Sénégal waaye xont ba Europe lay jóge

xale yi daw ci seen diggante baay ak marabu bi bu baay bi waxee daw marabu bi dóor ñu war a doon ay xale taxaw wax sëriñ si ba xoola quatre-vingt-dix ans ana mën digal xale yi ndax avenir yi bokkul temps yi bokkul ba xale yi ni càpp naa dañuy xaari ndigal yéen ngeen war dem ci laboratoire yi yéen nga war dem gëstu ji mathématique physique chimistrie yéen ngeen war dem jàngi cette science artificielle nga mu ngi toj àdduna bi

man nag bërki biig bi ñu waxee defoo naa ne tuub nañ dañoo juumoon waaye ndekete woo pourquoi ñu ñëw ci marché bi dañoo invité ñëpp te Cheikh Omar nekkoon ci ñoom te biñ koy jàppit ñoom ñoo tax ndax ñoom lañ invité woon Cheikh Omar représenté leen fa mën leen di tontit àdduna bépp a ngi dégg kon Cheikh Omar yéen yéen a tax ñu jàpp ko waaw yen ak góor jigen ñi naan sam jikko yi ndax bu ngeen ko ba mu toog bokul bokkul du ko wo bi ngeen ko woone dik and ak yen góor jigen yi woote ñu tek ko loxo ngeen daw yen mbir mi lepp loolu dong la loolu rek la waye fi ñu tollu tay fi aduna bi toll fi Sénégal jëm ben appartement rek mo ci am kenn ci perte deug deug deug deug muy askan askan we perte perte ba jaaxaan askan ñu a perte perte ba sepp une police maudite une gendarmerie truquée une force armée une armée française du Sénégal nous xamné amuñu ko dama bu régler problème bu Cheikh affaire Ousmane Sonko bi dama Sénégal

bu fekkee ne Macron dana ëpp doole man la toog sa put jël avion air Sénégal bii dem ba ko nga wàcc daw Poutine làqu la dem nga làqu ci ginnaaw Poutine Macky boo bëggee tàggoo Macky tubaab yee la man xam naa ko xool suñ kilifa yi diine yi ku ci ma sa jote tubaab bi rek def na la ko xool leen président africain yi ñaata tubaab lañ ci rey ñaata président lañ fi rey ñaata coup d'état ñaata guerre civile la France organisée en Afrique moo tax Macky Sall ragal Macky bëgg na ci génn waaye xam nga fi muy jaar waaye lii ma lax boo ko defoon da nga jëlal say bagage nga dugg ci am yaa mën a fay sàll daw dem Moscou làqu ci Poutine Poutine dana ko gérer wala nga bàyyi as nga bàyyi assemblée nationale bi opposition bi jël ko daanu génne armée française bi talal loxo Soviet Union ak américain yi liggéey ñu làq la fa Macron loolu teg bët réew mi da la ngi noonu wa Cheikh Omar bu leen nangu Macky di ko téye le professeur Malick Ndiaye que j'ai connu très tôt à Paris nga xamné yalla ko may ci public psychologie yalla ko may ci sociologie

sàcc yi nga xam ne ñoo gën a bon sàcc yu garaaw yi mooy gouvernement yi dama ne boo demee Dubaï gis waa kër Macky Sall lañu am ci alal foofu da nga naan du dëgg xool leen Mansour Faye xool leen même maire yi seen duñ ko duma Marème Faye làmb poos bi neexal nguur soosu waaye ne ko yaa gañe félicité ko réew mi du ma sa dem te du dem man nag am naa ci wàll ah. billaahi wallaahi mën naa waat ci yàlla ne Sénégal laa juddoo de waaye trésor public billaahi musuma lekk seenu junni trésor public lekk seen junni te am ci wàll nag waaw dama ne sëriñ boo fi gis ak loo fi mën a am sa maam lu dem lu mu def rek sa maam def na lu ko raw bu ci añaka rek ndékkee ak ci kaat kaat di ci nappaaje seeni jeeg respecté leen ñi ci des wax naa leen ko audutaay quatre-vingt-douze pour cent des marabouts lekkuñu quatre-vingt-douze pour des marabouts yalwaan la ñuy dunde quatre-vingt-douze pour cent des ñi ngi abandonné sax daara yi daw dañoo dem ba soppali ay jabar parce que amuñu luñ lekk benn trois pour cent wéer ko ci seen maam coloniser l'islam yépp ci la ñuy añ ci la ñuy reer ci la ñuy ndékki ci la ñuy takki soxna ci la ñuy dawli 4-4 ci lañu dajé du bay di seyenté li dafa ñaaw dafa ñaaw motax yi ñu nekk yi ñu nekké ñom goor jigéen yi franc-maçon yi dañ ko xam parce que dañuy dajé yeen du bay dañu dajé yeen ci hôtel yi yeen bok ay njabar yeen bok ay magie ñom xam nañ ko motax respecté wu leen motax and mu jikko yi dama bëgg mbiri tariixa teg leen ko feulé mbiru Sénégal moo leen intéressé mbiru citoyenneté moo leen intéressé waaw Imaam Sarr bi muy door a commencé daf daan dóor ci tarixa yi da dóor da daan dóor Tiwaawan leen ñu corrompre ko mu doon Tijaan léegi lu waa Tiwaawan ma nga ca lu ñu wax lu ci ca kër Mbuub moom taalibe dëgg la waaw kenn ku ne na sa baay daa defe noona moom moom la war a defee dem leen ba di yedd dañ lay yedd sax yow sa baay bi fi nekkee sa baay ak si sa bàyyi ak nàngam déedéet suñ baay mën naa juum ah. yow mën ngaa ni ci dëkk mën ngaa xam sa baay du xam baleen seen wax ji te ngeen jóg ci senegal ubbi leen laboratoire yi xale yi dugg ci te yii ngeen bàyyi ko ay parparo te Macky Sall mii ngeen jóg ci te Cheikh Omar Diagne ñi mu xal tàng la yàgg yàgg dana ko sànni ci suuf lii man Ousmane Dramé maa leen ko wax kon naa ko yemale fii xol bi neexut ndax cheikh sama xel danaan yar ci nam tëdde cheikh damay toog sama xel dem ci ni mu sóonu ci prison bi cheikh damay toog mu yàgg ma xool lekk yi ko wax nu war a mel cheikh damay xool mu yàgg ma ne waaw kii bu bëggee gaanuwaay nu muy taxawee foofu ci biir nit ñi ma xool góor jigéen bii nga xam ne day sëy bay sëy seen ay sénégalais ma xàmmee ko Paris mu jëngalu xottu taatam di waaxuy dem ànd ak ay fari góoram kooku tey kooku tey Cheikh Omar mi war a naafile Cheikh Omar mi war a dog ak njabootam Cheikh mi nga xam ne ci weeru koor la ne ah ab góor jigéen ne ko danaa la tëj président bi ànd ci ak moom comploté ak waa tribunal waaye lii mu nekk yéen tribunal justice bi les magistrats danaa ko waxtaan billaahi billaahi ku mën a bàyyi ci yéen baal defi leneen dama yéen a ngi jënde ëllëg seen bisub tay bii te dara jëru ko dama ne seen ëllëg yéen a ko jënd tey te ku wedd lii ma lay wax 4 heures du matin bo yeewoo julil ñaari làkk delu teud bala ñoo nodd fajar da nga jakkalu li ma lay wax Macky Sall jëru ko Marème Faye Sall jëru ko sàcc si jëruñu ko une assemblée nationale bo xamni ne yi ñepp sacc lañ ñi ci drogue bi ñi ci phobie ñi ci caga fo len seen rek affaire tiagalé même assemblée nationale ay góor dañuy takanté dañuy takanté ay góor ay góor di takanté assemblée nationale ñu nan passe du deug du passeport lañ soxla mais lenen lañ soxla ci réew mo xamné ne seigne touba Tuubaa mari ku ne ngeen tuddu ko ku ne ngeen tuddu ko ku ne ngeen tuddu ko rek ñoo ñu liggéey nañ ba seen jaan wacc lañ wara def def nañ ko ba réew mi sotti ñu ñëw deful li ñu def waaye nous allons payer le prix nous allons payer le prix cost bi daana ko fay parce que yàlla lépp loo xam ne mentionné na ko defal ci sa yuur ne par A ou B da nga dajeeg loolu te ñun jaamuwuñu yàlla ay xërëm ak bokkaale ca la ñu ne ca la ñu ne ñii tubaab bi na si réew mi nag ba ngalaat lu béeméerlu jëlimool teg ma din këdd ak duma suba ak guddi ak ngoon te nous sommes impuissants impuissants pour teggi toppale tànk tubaab bi dellu ci yàlla kep moom man atan, ñu sukk tuub jooy ñaan ko mu teggi tànk tubaab bi teg ko fi su mën a mën a te kulli di foo dogee rek da sam xel dem ci Cheikh Cheikh Omar te marche bii dikk marche bii dikk yéen xale yi Ndakaaru surtout la banlieue surtout yéen waa Fass dama ne bu kenn manqué waxuma marche libéré libéré waxuma loolu de dama ne intérêt français mu ko mën a viser def leen ko Cheikh Omar méritul kaso boobu ñaari dërëm yoru la ko état bi ci kenn mosu koo may dara Djibril War ci coronavirus bi passé képp ay saakoy ceeb la jël di ko yóbbu ci kër jàmbur yi xam naa fi mu ko nuyu xam naa ñu ko jox am naa samay xarit ay saakuy ceeb la di par semaine ay plus de vingt sacs ñu leen di indi ñoo jël ko séddale ci koñ bi ay ndey gox ñàkk fay la looloo am lépp posen la ak riba manipulation am chambre commerce xam naa lépp xam naa manipulation yi am chambre de commerce ñu koy defee ak ñen a koy def xam naa ci ñu bari ah? bu ngeen jógul jublu ci réew mii prox mun leen ko bañ a def te mun leen a bañ a dem sawara ndax amul lu ngeen laayil yàlla yàlla alxuraan ji leen jox ak réew mi réew mi leen jëkk a jox sax xam nga jël alxuraan jox leen ngeen toog ba bërki démb doo a xam ne góor jigéen daa aram te sax xamu leen lu ci yàlla wax yàlla dana rey leen góor jigéen rey rendi yéen ngeen ne bu leen leen rendi mel na leen na ko criminaliser kon jàpp ngay góor jigéen mu tëj la mois deux mois trois bàyyi la nga dem def nga loolu nit dana xalaat loolu yéen ànd sàmm jikko yi moo tax ba ci gën dara kàmm da ngeen weeru te Sénégal yi découragé nañ ci yéen wax yu yolom yi ngeen wax ci ci ndaje mii dama ruus man defoon naa sa yéen a woote ndey ku woo France dégage woote ku ma bett nga yow ku ma bett Ababacar Mbow yéen ñëpp ñeen ñooñu groupe yooyu ku ñu ma bett ngeen bu ngeen amoon fit bu ngeen amoon fit man damaa nas yéen a jaay Cheikh Omar waaw yéen ko jaay Cheikh Omar wax na dëgg nee ko mbaam nga wax na dëgg parce yàlla ko wax doomu aadama day dem a dem bi suufee suufee ba toll ne mala góor bu demee ba summi jibril waar dëngalu sa morom góor war la yaa gën a suufe rabu yaa gën a suufe rabu sëriñ daar yi ngay tudd nag ci laa bokk ah ci laa bokk doo nitu dara lii maa la ko man Ousmane Dramé porté ma plainte yaa bon ku sant waar ci Sénégal rek war ngaa tiit aller retour W e, aller yi ku sant waar rek te concentré wu da nga xam ne kii bëggoo mu yeewoo sa kër ku bon a ngi nii ànd ak Macky Sall ñuy des déchets toroxal ndaw yi amatul kenn ku am yaakaar y a aucun parmi nous bu am lu ko wér ne yoon yi mu jaar fa la Macky Sall yaa bon Macky ànd sàmm jikko yi dem leen ngeen waxtaanaat juum ngeen te vous allez payer le prix woote moom bu ngeen ko defetee mu ngeen am ñaari nit xale ñoo toq ci seen affaire tarixe yi ngeen di imposer seen tarixe yi xalé dañ ci sonn tok ci tay ci xalé xaliss lañ bëgg bu weex tal merci des bees yi SA di ci dawal yii la xalé yi bëgg xalé dañu bëgg xam-xam bu wër xalé dañu bëgg ñu wopé faju seen day mo faj fañ xalé dañu bëgg hôtel yo xamné dañu am accès ci bir am xaalis buñ ci expel xalé dañu bëgg l'islam ci set ju sel xalé yi ñu ak bokalé babakar mu tardé ngeen tardé ngeen xalé yi ci lénen lañ né bu ngeen defé ne xalé yi ñoy raam ak ciap capp ci suuf ñi ray seen bu ak bilil tifli torox ngeen bu fekké ne di campagne torox ngeen tarixa ni ko seeni borom defe won bu ko topé won dana am solo li tax dajala mbolo bon nako seeni borom defe won mu sel rafet doli l'islam ku ko dégg a sikar sa ak jàngi ak xam-xam ak liggéey bi mais tay ñu bëgg ko wute ay Mercedes bëgg ko takk ay jabar koo ci seen ku jabar ji day monte ay xef xeesal ba xonq cur pirig yi wàcc ba ci xotti taaj yi mu xonq cur diw rouge à lèvre ci tuñ yi xam di rouge lépp mbaam xoox lañ ko defaree rouge à lèvre lépp mbaam xoox lañ ko defaree lii jigéen ñi def fii lépp mbaam xool lañ ko defaree dem li ngeen gëstu li ma leen di wax fanaanee lekk mbaam xoox ba suba ñun loolu nga bëgg noo jiite li yàq lislaam jaa ngi noonu jigéen ñi daañu leen def loolu ne sëpp jalañ wang juutu pecc lu ne dañu leen ko def loo bu nu xëyee nag dina fontoo dama ne tooñ ngeen sénégalais yi yéen ànd sàmm jikko yi tooñ ngeen Cheikh Omar Diagne wala ngeen war ko yii ngeen def ay tappale la dajaloo leen ngeen wuti malagalu seddale ko ci réew mi ñu dem 100 mètres daj ji mur bi génné Cheikh Omar Diagne ni ta ka defu len loolu waxu len fexi nit defu len fexi fulla waaw dem len yé séti professeur malik ndjay mu bi sen bop yi sociologue la té il est excellent psychologie boo tok ak mom sen yuri yi and suñu jikko dina ko ubi dem len daj ji miiru 100 mètres bi génné Cheikh Omar Diagne yóbbu ko këram kon asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, man la Ousmane Dramé bu la réveillé conscience yàlla nañ ko yàlla jéggal defal lu sutura to lu réew ban ñu jot ci ndax kat réew mi ñak nañ ko mom réew mom ñak nañ ko notre pays est possédé par Satan réew Iblis la ko téye ci loxo Iblis la nek réew mi nit mu ñu fee jaamu yalla c'est pas vrai amul kenn ku fi mën yendu wala nga farandi fi wala nga une semaine te lekkoo riba wala fenoo wala fendu wun wala tappale la wun la

ñi ci chips yi ñëpp ñi ci technologie bu bees bi di avancé ñun senegal ak truelle truelle bu maçon yi liggéey mënuñu koo defar ñun waa senegal kuddu ci war billaay Dubaay lañ koy jënd ñun waa senegal bool buñ lekk bool dañ dem si jënd ko almet gun taalee almet gun taalee dañ ko dañ ci nit lañ ci yaakaar université bu am plus cent ans cent ans université ab bande bande bu laxsee ab góom mun leen ko defar taay la noonu mun leen ko defar dama ne mun leen a defar sax antibiotique boo xam ne man ñi mën wo ko am doom yu fikir lo zéro zéro bo rek di fay kat diplôme bu français am rek Sénégal am na bu toll non Sénégal bi am na diplôme gis France Senegal am na ko urbi, ba heure bi heure bi yi ñoo canaliser. gas benn canal rek bu départ Dakar dem Thiès ba heure bi Sénégal pour ñu calendrier douche yi douche yi mënta nekk ay fosse ay fosse lañuy def ku jur sànni ci léeg gone daanu ci biir école yi école yi boo ci dugg sa bakkan bi da koy darndar dugg si xasaw robinet yi xale dañuy naan ni ci robinet ci calcaire ndox bu bon lépp di plomb Macky Sall ak Marème Faye Sall ah ak mbokkam sal sal yi tok ci kaw nit di saw ñedd ko bandam ah jël ke xéti pël yo xamné ne ñoo yées ci pël yi parce que 90% des pël yi ma xam ñi ci ëpp ay jullit lañ ay nit lañ te ñëpp sax ay jullit lañ mais Macky Sall daf leen utiliser comme ni ñu utiliser won ni Macron bëgg utiliser créer l'état du Fouta Djallon l' actuel pays les pays du Sahel. Macky Sall sukkandiku ci ne ko banaan ah bëggan yàq région bi bu leen ko nangu bu leen ko nangu ku ne ku ne nag pël am nga problème waroo ko tudd baat bi moom boo ko tuddee daa mel ni Israël daa dañoo mel léegi les juifs du Sénégal les juifs te noonu ñun ñëpp ay bokki ne mës ta am Sénégal lu mës ta am nag bu amee nan na lii am na ku gis nen ne nene ngi lii fi Macky Sall gën amul Sénégalais bu koy weddi ba len bu ñu waxee ne dañ koy wax li fi am xam ngeen yeen ñu gëna xam dama ne 90% hal play d'accordun ci mais Macky Sall mo koy def mo koy def ànd ak ñu bon ñu jangur ku mel ay Farba Ngom sagari doomi adama yo xamne bo boo diko tefli tuddu sentu bo xanti kanara du ko kan joxenti ciir jublu ci sun bop defar réew mi ndax kat defar ko jot na xale yaa ngi judd di ñëw avec l'explosion démographique bi nga xam ne mi ngi dugg si bi Sénégal ak Afrique nga xam ne askan yi dañuy doubler population bi gën di bari te amuñ sax benn aspirine bu mën a naan bu suñu bopp yi metti ñu defar ko dara kon kan jublu ci suñu bopp tey waxante dëgg ci seen clan yi ak seen politique yi teg ko ci suuf waaw nii ko ànd sàmm ji koy defee nañ soppi ko te dellusi ci géew bi lii du sori yàq seen i der ñu takk leen étiquette képp la man day mun leen maa gondi man waaw ak lu ngeen jéem mun leen maa gondi te sama digg ak Serigne sama digg ak El Hadj Malick sama digg ak kilifay diine yooyu nga xam ne ñoo fi nekk billaahi wallaahi amul kenn kenn ci yéen ku ci mëna a topp lu toll tarfatal ay ni amut ni ma doxale ne tey doxale ni nii ngeen doxale moma ma neexut ma doxale ni ma neex du ngeen ko lek bayyi nit seeni maam moomu ko nun noo ko bokk nun ñëpp ko buma bu ma sama wala la soxla buma sama wala soxla kon peace and love peace and love na yàlla suturaal te jàmm ci réew mi waaw OSR ñu di gërëm bu baax a baax waxtaan wi yaa ànd ak le des consciences man Ousmane Dramé ma def ko wax naa li ba tey réveil des consciences du man dong ñëpp ñëpp Cheikh Omar Diagne ci la bokk ñun ñëpp ñooy réveil képp kon yaa ngi bopp doomu aadama ji rek ci groupe bi nga bokk yàlla may ñu woor koor gu baax koor gu jaar yoon korom bi ñëpp ci ak wér dañuy wér ñi ci kasso bi ñëpp ñëpp na ñëpp yes na ñi ci bitee leen yées ñi ci biti ñoo yées ci kasso bi bo pesson bakari bakari ci biti ñoo gën ci kasso bi ak rek ak rek tej doomi jambu tej sal ya bon ko anda ak mom du la ko anda ak mom ba nyai aw ñay aw ñay Macky am ci yo soxla Cheikh Oumar dafa dara Farbangom Farba Ngom ñaata wulis lañ ko jappal juroom ñaari wulis mu def ko xaay bam fess genn ko rew mi rombu do dem fa faaliwu len sax dem ba France yu japp ko juroom ñaari waxande yo xane boku ubi def bela xaalis ba tay dimul kasso ah kon alaykum wa rahmatullah euh, jam rek mu soobee yàlla liñ bëgg ñu ko am ndax euh, deug lay commencé ti deug lay tëje waaw aw fen nak day jël deug gont dab ko aw fen day jël ascenseur ngir ngeen 30e étage nga jël escalier dox ndànk ak di nopolu deug lo lay def dab ko ti jitu ko ci barab ba kon yalla yalla sutural te indi jamm ci rew mi puissant Lô puissant Lô jaa ngeen jëf jaa ngeen def jaa ngeen jëf encore mando Ousmane Dramé pour réveiller les consciences